ñun ñii toog dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañuy sàkku xam-xam ci biir daara ji ñu ñëw nag andil ay laaj ak tontu yu ci diine yu am solo yoo xam ne ku ko diglu rek diñ ci jariñu kii nii toog mooy seex Saliou Dieng kii sëriñ Modou Gueye kii Alxaaji Pape kii Seydina Mouhamed Ndiaye kii Seydina Moussa Diop man mii di wax ak yéen nag man maay naa Ndiaye ma ñëw ci question bu njëkk bi Cheikh Saliou Dieng damay laaj nit lan mooy waral sangu farata jërëjëf suñu seexu naa ci laaj bi waaw sangu farata de am na ñu koy wax sangu set moom nag ñu koy waral ñetti yëf la benn bi mooy deretu mbaax ñaareel bi mooy deretu nifaas kon ki nga xam ni dafa am mbaax bu deret bi dogee dafa war ci moom mu sangu ji ki nga xam ne tamit dafa am nifaas bu deret yi dogee dafa war mu sangu bu ko ñetteel mooy janaba su ko defee janaba bu nga ko noon leeral dañuy wax ne ñaari xaj la benn bi mooy mayu moo xam ne dafa génnee ci nit ki te ànd na bànneex ba mu baaxoo àndal moo xam ba muy génne booba daa fekk muy nelaw wala muy xoole wala muy sëy ñaareel bi mooy sawukaay boo xam ne dafa tàbbi ci beneen sawukaay donte man yu génnul sax daa war ci moom mu sangu ji jërëjëf ki doon tontu léegi mooy Cheikh Saliou Dieng leer na nañ ñu jàll ci Serigne Modou Gueye laaj bi ma lay laaj mooy koo xam ne sobe dafa takk ci ab yéreem nan la war a def bu sobee taqee ci sa yére nan nga war a def jërëjëf suñ naa koo xamante ne sobe dafa taq si yére li mu war a def mooy kooku li war si moom mooy mu dindi sobe gi ana ni mu koy dindee mooy day ut ndox mu laab mën a laabal mu xool fi sobe si taq si yéreem mu raxas foofu kepp ba mu set su fekkente ne daf ko réel si yére bi xamul fan la mu jël yére bi yëpp mu daa koy fóot jërëjëf ki doon tontu léegi mooy sëriñ moo Gueye leer na buñ déggee nag ndox mu laab te mën a laabal mooy ndox moo xam ne caf nga soppeekuwul xet gi soppeekuwul couleur bi soppeekuwul wala ndox moo xam ne sax la ko soppi dafa dëkk ak moom lu mel ni mbaalaa mbaa wala pétrole bi nekk ci suuf bu soppee ndox mi ak ba tey ndox mi ndox mu laab la te mën a laabal ñu jàll ci sëriñ alxaaji Pape laaj bi ma lay laaj mooy mukallaf bi nga xam ne da doon julli imaam bi koy jiita yan sart la war a dajale pour julleem mën a baax mukallaf bi war a julli imaam bi koy jiite yan sart la war a dajale pour julleem mën a baax jërëjëf suñ seex na yow mii nga xam ne mukallaf nga imaam bi lay jiite julli farata imaam boobu sarta yu war a dajeek moom pour bu la jiitee sa julli mën a baax mooy imaam bi faw dafa war a nekk jullit kon yéeféer bu la jiitee sa julli du baax bu si topp mooy imaam bi dafa war a nekk mu kallaf kon xale bu ndaw bu la te nekkul mu kallaf baax bu si topp mooy imaam bi dafa a nekk am xel kon dof bu la jiitee baax bu si topp mooy imaam bi dafa war a nekk koo xam ne day xam luy defar julli gi ak luy yàq julli gi ñu déggandoo ko ki doon tontu léegi mooy Pape Touré mu leer nag kuy julli koo xam ne da doon julli xale jiite ko julli ga baaxul xale bu mat mukallaf bu matul mukallaf bu la jiitee julli gi baaxul ñu jàll ci Mouhamed Ndiaye laaj bi ma lay laaj mooy ku feebar ndax daa war a julli ci waxtu bi wala day xaar ba wér bu dee nag dafa war a julli ci waxtu bi ana nan anam la war a jullee waaw jërëjëf julli moom wàccul kenn waaye nag ku feebar dafa am anam guñ ko war a defee kooku nag dañ koy may su fekkente mën na julli taxaw te du wéeru mu taxaw te du wéeru julli bu fekkente nag mënu ko mu taxaw weeru julli su fekkente mënu ko nag mu toog te weeru julli bu fekkente mënu ko mu toog wéeru julli su fekkente mënu ko mu tëdd féetee càmmoñ julli bu fekkente mënu ko mu tëdd féetee day joor julli bu fekkente mënu ko mu jaaxaan julli waaye nag bu fekkente ñeent yu njëkk yi bu fekkente dafa mën a taxaw tëdd wéeru bu fekkente dafa mën a taxaw tëdd wéeru mu dem taxaw wéeru kon waa julleem day yàqu wala bu fekkente dafa mën a toog te du wéeru mu toog wéeru bu waa julleem day yàqu waaye nag ñett yu mujj yi fekkente mën na toog féete nday joor mu dem toog féete càmmoñ ba léegi julleem yàqu na loolu toftale gi dañ kaa sopp rek mooy ñett yu mujj yi jërëjëf ki doon tontu léegi mooy Mouhamed Ndiaye ñu dégg ko bu baax nag bu fekkee ne ki feebar lañu wax loolu ne ko kon julli wàccu la waxuma laaj na ki nekk ci ay soxlaan ku nekk ci ay soxlaam ba sa julli ba julli jot ak na nga ko dagg te dem julli ji ñu jàll ci pap kii Moussa Diop laaj bi ma lay laaj mooy lan mooy mukallaf ak yan màndarga mooy teg ke nit ki mën na mukallaf waaw jërëjëf sëriñ Cheikhouna ci laaj mukallaf mooy koo xam ne yàlla daf koo sant ay jëf pour mu def ko su ko defee am ci tiyaaba su lankee bañ koo def am ci bàkkaar lii tegte la ne moom nit ki mukallaf la mooy bu gisee benn ci màndarga yi may bëgg a wax bi ci njëkk mooy bu gisee kawari poqotaan wala kawari naq bu dee jigéen la mu gis mbaax wala mu ëmb walla ñu am 18 ans te fekk am nañ xel su boobaa nañ xam ni kon ay mukallaf lañ jërëjëf Moussa Diop ñu dégg ko bu baax ndax ñu bari jàpp nañ ni li fekk amuñ 18 ans rek matuñ mukallaf te fekk ni sax mën nga mukallaf te doo am 18 ans ndax am na màndarga yu man na feeñ bala ngaa am 18 ans ñu jàllaat siñ Cheikh Saliou Dieng damay ñëwaat ci yow laaj bi ma lay laaj mooy faratay julli ñaata la jërëjëf suñu naa ci laaj bi faratay julli fukk la ak juróom bi ci njëkk mooy yéene ñaareel bi mooy kabaar bu njëkk ba ñetteel bi mooy taxawaayu kabaar bu ñëkk ba ñeenteel bi mooy jàng faatiha juróomeel bi mooy taxawaayu jàng faatiha juróom benneel bi mooy rokon juróom ñaareel bi mooy sigi si rokon juróom ñetteel bi mooy sujoot juróom ñeenteel bi mooy sigi si sujoot fukkeel bi mooy bu fekkee ni imaam moo jiite nga yéene xoy ci imaam fukkeel benneel bi mooy yemoo fukkeel ñaareel bi mooy dal fukkeel ñetteel bi mooy toftali julli gi fukkeel ñeenteel bi mooy sëlmal fukkee juróomeel bi ma toogaayu sëlmal jërëjëf Cheikh Saliou Dieng ci lim bu mat bi ñu bàyyi ko xel nag fukk juróom yi mu lim benn boo bàyyi sa biir julli rek jàppandi sa julli baaxul ñu jàll ci Serigne Modou Gueye yow ba tey dama lay laajaat lan mooy faratay njàpp jërëjëf suñ seexu naa faratay njàpp juróom-ñaar la bi si njëkk mooy nga yéene ñaareel ba mooy nga raxas sa kalam ñetteel ba mooy nga raxas sa loxo ba ci conc li juróomeel ba ñeenteel ba mooy nga masaa sa bopp mooy dem bi juróomeel ba mooy nga raxas sa tànk ba ci dojor bi juróom benneel ba mooy nga bomb juróom ñaareel ba mooy nga gaaw lii nag lu mat a bàyyi xel la ndax boo ci bàyyi njàpp mi yàqu na te njàpp mi su yàqoo julli ga mënut a baax ah ba tey damay ñëwaat ci yow léegi nit ki bu fàttee ci juróom-ñaar yi nga lim benn ana nan lay def waaw koo xamante ne da doon jàpp fàtte farata si cëriñ jàpp yi kooku de attem dafay séddale ko si ñaari xaaj bi si njëkk mooy su fekkente ne teel na kaa fàttaliku mu dem mu raxas cëriñ jàpp boobu daal di àggali li si des ba pare mu julli ji fekkee deuxième bi mooy su fekkente ne daf ko yéex a fàttaliku day day dem yéene daal di raxas farata boobu mu fàtte su ko defee mu baamuwaat julli gi. jërëjëf Serigne moo duggee ci tontu bu leer bi ñu jàll ci Pape laaj bi ma lay laajaat mooy yan takkaay lañ may góor mu sol ko ak yan takkaay lañ may jigéen mu sol ko ci xeetu wurus ak xaalis. jërëjëf sëñ Seexna si laaj xeet takkaay yu ñu may góor mu sol ko ak yu ñu may jigéen mu sol ko si diggante wurus ak xaalis. bu fekkente ni jigéen la may nañ ko mu sol lu ko neex ci xeet takkaay bu fekkente ni góor la nag mayuñu ko mu sol dara lu dul benn jaaru boo xam ne jaaru xaalis lay doon te jaaru xaalis bi dafa war a buñ ko doon peese dafa war a tolloog ñaar dërëmu seran yi ñaari dërëmu seran yi buñ ko waxee mooy 6 grammes yu manqué 5 milligrammes lu wuteeg lii nag ci xeet takkaay daganul ci góor mu koy takk inde yi bëri na góor yoo xam ne dañuy takk ñaari jaar ci seen loxo wala ñii takk ay seen walla ñii takk ay lam góor yoo nañ xam ne lu ñu def noon dafa xaraam jërëjëf Pape Touré ci tontu bu leer gi ñu jàll ci Mouhamed Ndiaye Mouhamed njaay Serigne Touba radiyallahu anhu dafa wax ci téeréem bii di tasawudu sixaar bi yaa ayyuha sibyaan la tastaxilu anil huda wa bil ulumi fastaxilu bil xifzi wa tilaawa wajtanibu majalis assaxaawa ñaari bayt yooyu laa bëggoon nga leeralal ma ko waaw kon jërëjëf suñu seexu naa si laaj ñaari bayt yooyu suñ Tuubaa radiallahu anhu daf ñu si doon dénk ñu ndaw ñi mu ne yéen ndaw ñi bu soxlawoo dara ludul dul njub ak mokkal ak jàng alxuraan ak mokkal ko te na soxlawoo xam-xam bu leen di mën a jariñ ci seen diine ak bépp xam-xam boo xam ne dana la jariñ te ngeen moytu bépp jotaay way texee ni jërëjëf Mouhamed njaay ma jàll ci Seydina Moussa Diop muy dernier laaj laaj bi ma lay laaj mooy jigéen bi nga xam ne dafa gis baax bu ko boroom këram soxlawee ngir jaxasoog moom dafa war a nangu wala dafa war a bañ loolu laa doon laaj. waaw jërëjëf Serigne Cheikhouna ci laaj kooku dafay bañ ndax jigéen gi gis mbaax li feek mbaaxam dugut ba mu dem sangu ji boroom këram na xam ne araab na ci moom muy bànneexu li tàmbalee ci jumbaxam ba ci bëti woomam rawatina muy joteeg moom ci sawukaay jërëjëf ñu yemale fii nii ci laaj bi ndax temps bi moo ñu ko mayul waaye lépp lu ci baax ñu xam ñu santalee ko yàlla lépp lu ci xaw a dëng nag ñu xam ni nag ay donga lañ ñuy jàng in uridu illa lislaax mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah macha allah macha allah rafet na lool jub na xocc dëgg na lool itam te wér na lool boroom xam-xam yi xam nañ loolu xam naa ne li si gën a yéeme daal mooy si bi mu àndal ndax xale yi lii ñuy wax ñeme nañ ko lool de te xam-xam noonu lay demee xam-xam moom amul sikk sàkk da nga koy gëstu ba mu leer masala surtout mas da danga koy gëstu ba mu leer dem na ba tax na sax li ñuy wax fatwa lu jafe la maanaam di tontu ay laaj lu jafe-jafe la parce que sikk sàkk warut si am loo xamul rek danga ko war a gëstu ji te xale yi lii ñu doon wax wax nañ ko ci anam bu leer boo boo defee tey jàngat li si gën a yéeme mooy wax ji niñ ko oddee ni mu amee teggin wax ju ama ama am teggin la ñuy wax joo xamante ne danañ la wax xam-xam dana leer dana ànd ak teggin macha allah kon ñun ñëpp dañu siy déggee liitam ci résultat yi daara ji la kon waajur yi toog na ngeen xam ne tam xale yi nekkul alquran rek la ñuy jàng noonu waaye dañuy jàng xam-xam ci biir daara ji ni ñuy jàngee alquran di ko mokkal di jàng français bi di si ami diplôme ndekkal li ni la ñuy jàngee xam-xamu di xam masala yi nga xam ne si la ñuy àttee julle di si àtte yeneen yi si aju yëpp kon daal mu mel ni lépp rafet na macha kon dañuy woore xale yi nga xam ne ñoo war a taxaw wuy yi nga xam ne mooy tëj jotaay bi bu ñu leneen dabul comme niñ ko waxee yéen tam jege si leen feeñal seen yéene ñuy wax ne daal liggéey bi moom macha allah rafet na trop trop trop mënuma ko ko wax waaye yéen ñi sama leen ko wax di ay leeri bay taala yàlla ngeen gën a xam responsabilité bi ngeen yor bàyyi bu mel ni bàyyi taale mii de liggéey bii mu sumb xàll ko ci anam bu leer a leer a leer a leer damaa jëlale kum doon sa waajur waaye ku taqee ci moom dara rek boo ko yëgee boo ko yëgul am nga responsabilité bu rëy rëy rëy parce que liggéey bii dara warul tax mu laal suuf dara warul tax mu xajam dara warul tax mu yéex sëñ maam Mor sëñ maam Seex yi ñi nga xam ne samay rakk ngeen te ñu jaxasoo dama leen di wax ne na ngeen gën a takk seen i ndigg bàyyi kat xàll na yoon wu leer de yàlla na fi gën a yàgg nag waaye xall na yoon wu leer sëñ Nasiru nag moom miin naa ko la miin goo xam la ma koy wax moom tuwaa lay bàyyi bañ àgg fa waaye damaa wax ne liggéey bii ku ko sa waajur xàll nga di si teg bët gis ni muy liggéeyee soo ko yëgee soo ko yëgul responsabilité bu wér war na la kon jëri ngeen jëf yàlla ngeen gën a yàgg ànd ak moom ci liggéey bi sëñ bàcc sëñ Ibrahima yéen ñëpp yéen ñëpp rek sëñ Nasiru ak njaboot yëpp na si si góorgóorlu bu baax a baax a baax jàppale ko ci liggéey bi maa ngi tub bu baax kon ñi doon def wéy yi nañ ñëw ñoom itam feeñal seen yéene jërë ngeen jëf jug lañu sargal gaay alquran ñoom na yàlla buur bi tànn ñi waa këram ñi yabaay seeni kër dem sa daraja wattu téere bi lii de doy na ndam wattu téere yàlla bi lii de doy na ndam juub leenu sargal gaay alquraan ñoom la yàlla bur bi tànn ñi waa këram ñi ya seeni kër jëm sa wattu téere yàlla bi lii de doy na ndam jóg leen ñu sagar gaay alxuraan ñoom la yàlla buur bi tànnali waa garam ni ya seeni kër jam sa daara wattu tere yàlla bi lii de doy ndam wattu teere yàlla bi lii de doy ndam yonen nee na ñi fi gën ñooy ñu jàng xam teg lii de doy ndam naa nu jàngi alxuraan teere yàlla bi ngir nu maana teexe fi teexe fa nu jëm ngir nu maana teexe fi teexe fa nu jëm yonent nee na mooy li jàng xam teg ci ji lii de doy na ndam nee nu jàng alxuraan téere yàlla bi ngir ñu mën a teexe fi teexe ngir ñu mën a texe fi texe fa ñu jëm yoneen nee na ñi fi xam te ci di ko jàngale lii de doy ndam naa ñu alxuraan téere yàlla bi ngir ñu mën a texe fi texe fa ngir ñu mën a texe deexe feenu jëm yonent neena ñi fi gën ñooy ñu jàng xam teg fi di ko jàngale lii te doy na ndam nañu jàng alquran téere yàlla bi ngir ñu mën a teexe fi teexe feenu jëm ngir ñu mën a teexe fi teexe feenu jëm ji yaani bay sawa yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla a yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla a aw tam ñu sargal suñu maam ju baax Sëriñ Taala Njaay jariya ka baax sonn nga si diine ji yaa ngi bay sawa sambula yalla yalla aar yalla yalla sambula yalla yalla aar utañu sargal suñu maam ju sëriñ Taala Njaay njaay yaaga baax sonn nga si diine ji yaa ngi bañ sawaab yal la yalla sambula yal la yalla aar yal na la yàlla sambala yal na la yàlla aar kontaan ñu sargal suñu maam ju baax Sëriñ Daara Njaay Njaay yal baax sonn nga ci ji yaa ngi ah, bay sawar. amiin waay yàlla sambala. amiin yàlla yàlla aar. Ah. amiin. yàlla yàlla sambala. amiin yàlla yàlla ah. sambala. amiin. faaw tam ñu sargal sunu maam juba Sëriñ Talla Njaay Njaay sonn naa si diina ji yaa ni bay sawaa yal na yàlla sàmmala amiin amiin jërë jëf amiin jërë jëf macha allah mbokk yi lu gàtt rek moo si des nañu may sëriñ Mouhamadou Nassirou Ndiaye tëj kàddu yi def ñaan ñu joxante rendez-vous incha ba déwee nag jàmm tey ñaan yàlla xéwal yi yokk bu baax kenn bañ a te ñëpp am wér lool sëriñ Mouhamadou Nassirou Ndiaye nag duñ ko présenté kenn doy na sëkk rek ñu ne mooy jëwrinu daaray xaadim rasul sa Touba Ndindi sëriñ Fallou doy na sëkk ñu yem foofu kon sëriñ Nassirou Ndiaye moom lañuy jox kàddu gi moom itam mu feeñal ay kàddu yéeneem ci lu gàtt te ñaanal mbooloo mi ñu yeewee ko te xéwali jàll si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 kenn ku nekk rek li la tax a jóg muy alxuraan ak lu baax yàlla nañu yàlla nangul ñi ngi sant mboolem ko fi teew tàmbalee ci kilifa yi nga xam ne si ni ñoo fi teew ku mel ne sëñ Bachir sëñ Xaadim ak euh, kilifa yi mbàkke mbàkke yi fi teew ñëpp rek ñi ngi sant ñëpp di sant parents d'élèves yi wax dëgg yàlla seen teewaay ak seen taxawaay ci daara ji ñu ngi koy rafet lu baax a baax di ñaan yàlla rek mébét yi ngeen am ci daara ji yàlla ko yàlla mottali waaw ñi ngi sant itam sëñ daara yi nga xam ne ñoo jàngale mi ak sëñ daara yi wuyu si ak dëkkandoo yi waa marché bi ñëpp rek wax dëgg yàlla taxawaay seen taxawaay ci bis bi ak itam ci ci daara ji ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax wax dëgg yàlla xam nga jàppe ngeen ko seen daara kon ñi ngi sant ñëpp mbooleem ku participer ci bis bi rek ci ñaan ci jëf ci wax yàlla na yàlla nangul ñëpp kenn ku nekk lépp loo am ci aaju rek yàlla na ko yàlla faj lépp loo am ci jàngoro yàlla na ko yàlla saafara wax dëgg yàlla bis bi am na solo ndax li gën a màgg ci kaw suuf muy alxuraan karim ci la ñuy moo moo ñu tax ci la ñuy yëngu kon képp ki nga xam ne si yaa ngi moo la tax a jóg rek jàppal yaa ngi ci li gën kon nañ yaa ñaan yàlla rek mu nangul ñu te musal ñu ci ndog ak mu yàq kon ni mu ñu maye ñu yàgg ko ñu fekk ko daaw ak daaw ji yëpp yàlla na ñu may yàgg koo fekke te itam mu yërëmal ñu suñu way dawlu yi rawatina ñi ñu fi tudd di soxna Serigne Mame Mor Mbacke soxna Koumba Ndiaye ak mboolem ñi leen jiitu yàlla yàlla yërëm ñëpp te yeexee ñu fi des te te nangul ñu kon ñi ngi sant képp ku fi teew muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw sant nañ ñëpp ñu jógee ba Njàmbur ñu jóge ba eh, Kala Kalsaan mooy Njàmbur kon sant nañ ñëpp ñu jóge Touba sant ñëpp démb ba léegi barki démb ba léegi ñu ngi fi kon ñëpp am nañ yéene ci bis bi yàlla mottali na ko kon yàlla na yàlla yàlla na yàlla eh, yàlla na yàlla faj aajo yi yàlla na yàlla defal ñu tawféex ñu yàgg koo fekke xale yi fi nekk itam seen i am ci ñoom yaakaar yal na yàlla jëmmal yaakaar yooyu yëpp aar daara ji sàmm ko sàmm way jàngale yi sàmm ba way jur yi te gën ñoo xeeta ci njub waaw te ñu xam ne nag alxuraan moom lépp waaye def rek da nga ko rëccu da nga rëccu da nga rëccu ne lu teewoon ma yokk ko waaw ndax benn boo def rek ñu fay la lu ko ëpp ñu fëral la ko loolu ñuy waxtaan leeral nañ ko kon bu kenn ndax boppam ni nga xam ne kenn mënul jëfaajal sa bopp sa bopp sa sa morom kon lu waay jëful rek doo ko doo ko doo ko kon na ñëpp bàyyiwaat xel góor góorgóorlu ci lu baax mooy rek mooy rek mooy mooy li am solo adduna amul solo waaw lu baax rek moo fi moo fiy jariñ tey moo fi jëriñ moo fi jëriñ ëllëg ab safaan rek lor rek lay jur kon na ñëpp bëgg lu baax te ne ci te ñaan ci barkeb sëriñ bi mu jàpp nañu suñu aaju yëpp waaw kon ñi ngi sant ñëpp dañoo mëntu woon a ñàkk jël kàddu rek waaye sant nañ sant nañ baax a baax alhamdulilah kon na ñëpp tàllal sëriñ na Nasiru def ñaan ñu jog jëm ci xéewal yi na ñëpp tàllal wax amin fu waay nekk tàllalal wax amin sëriñ na Nasiroo ngi def ñaan ci ndigalu jëwriñu liggéey bi di bàyyi Taala Njaay moom it yàlla na fi gën a yàgg te wér fu waay toll rek waxal amin ñu joxante fi rendez tey ñaan yàlla résultat yi yokk liggéey bi gën a rafet gën baax gën a tegu ci yoon ñu boole ko fan yu gudd yu ànd ak wér amin amin